day tax mu mu gëm ne rafet na loolu bokk na ci day defar kër waaw bari na ci ñu gis ñu wëyel seen jabar wéy yunus bi alayhi salatu wassalam khadija wala aisha wëyel nako khuliqta mubarraan min kulli aybin ka annaka qad xuliqta kama tachao aïcha ko wéyal yonente bi alayhi salaatu wasalaam wéy wéyal ko léeg-léeg nga gis kuy wéyal jëkkëram kuy wéyal jabaram ndeysaan am naa si benn nijaay wéyal na jabaram dara nekku ci dara nekku ci waaw yooyu yëpp bokk na ci lii wa ashiruhunna bil maaruf bokk na ci comme ni ko tabari waxee nga am teggihinu teggihinu sëy nga xam teggihinu sëy yonente bi alayhi wax nañu ne bu leen dóor seen jabar yi ba pare ñëw sàkku leen ci lal bi bu leen dóor seen jabar ba pare ñëw sàkku leen ci lal bi wala nga merloo ko ba pare sàkku ko ci lal walla nga bàyyi ba sonn nga sàkku ko ci lal wala nga ñëw fekk ko ci dal foyewoo ko yooyu yëpp dafay am te bokk ci rafetal te danay tas ay sëy yu baree bare baree baree bëri foog nga def te teggiinu sëy ba nga xamante ne dana tax moom mu am cofeel ci yow bokk na ci li ñuy mujj a wax te waa ashiruhunna bil ma'ruf di ko laaj te tabari wax ko mooy nga fexe gis taaram moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam daan na ko def bokk na ci jabaram yi gënoon a rafet Zeynab bintu Jahsh Zeynab dafa rafetoon yonent bi bu rombaan jigéen wala mu romb leneen ci taaru àddina loo xamante ne dem na ba koy xëcc muy gis taaru loolu day daw yàkkamti dem xool jabaram ju ñuy wax Zeynab taari jabaram fàtteloo ko beneen taar ndax loolu taar la boo xamante ne taar taaru bu ko yàlla jox la taar bu dagan la nga xool benn flawa taaram taaru àddina nar la cee xëcc nga xool benn jigéen taaram nar laa xëcc te loolu du taar bu dagan daf daan gaaw dem xool Zeynab bintu Jahsh bu ko defee taaru jabaram fàtteloo ko taaru yeneen muy taar bu dagan yooyu am solo la nit ñi di ko xam kon yii yuñ jëlee la ci baytu nubuwa ci bi nga xamante ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ngi dëkk benn jabar yu bëgg leen itam jox wa ashiruhunna bil ma'ruf ci wàllu boo xamante ne yonent ci wàllu ci ki nga xamante ne dafa amee ay jabar yu bari xam nga mun ngaa dëkk benn jabar ci rafetal jëm ci moom waaye kenn la mën ngaa rafetal jëm ci kenn waaye rafetal jëm ci kenn dafa uteeg rafetal jëm ci ay jabar yu bari léeg-léeg yi jigéen bala nga koo xam rek takkal ko wuj léeg nga yore ko muy góorgóorlu lool pour moom rek nga amee nga takkal ko wujj nga gis lu ñuul ci moom bari na ci texit loolu la noonu bu ko defee dund ñaari jabar ci kër wala dund jigéen takkal ko wujj naka ngay rafetalee jëm ci moom bokkut ak naka ngay rafetalee jëm ci ci kenn te yooyu yëpp mën nañ ko jëlee ci baytu nu boobu waaye ba nañ cee dem am na ci jamono ñuy sikki sàkk ci maanaam dëgguk li ñuy wax taaddut am na ci jigéen ñi fi mu nekk nii ci àddina bi ñuy wër ñuy wax ne waaw maanaam jabar yu lu ëpp benn jabar daganut te it ñu ngi koy jéem a jëlee ci Qur'an nee nañ te it nee dañ koy jëlee jëmee ci leneen alquran dafa wax ne wankixu ma taaba lakum min annisaai mathna wa thulaasa wa rubaa fa in xiftum an laa taadilu fa waaxida alquran ne na na ngeen takk ci ñiñ leen daganal ci jigéen ñi ñaar ñett ñeent su ngeen demee nag ba du ngeen mën a maandu ngeen yem si benn alquran ko wax fankixu ma taaba lakum min annisaai masna wa thulaasa wa rubaa fa in xiftum an la taadilu fa waxida na ngeen takk ci jigéen ñi dagan ci yéen ñaar ñett ñeent su ngeen demee ba ba yëg ne du ngeen mën a maandu yem leen ci benn alquran da ko wax ba pare indiwaat beneen aaya yàlla ci beneen aaya ci suratu nisa mu ne walan tastatiu an taadilu bayna nisaai walaw xarastum nee na du ngeen mën a maandu yàlla ko wax de du ngeen mën a maandu ci seen diggante ay jabar même su ngeen ko jéemee benn aaya ne na takk leen ñett ñeent su ngeen ta manu yam len ci ben benen ay ñew fu ne du ngeen mëna manu kon ñu ne kon ci ñom gannaaw du ngeen mëna manu kon ben moy dagan lu upp ben du dagan waye lolu du wax ju taxaw ndax liko ko moy li ñew ni yaronte bi alayhi salatu wassalam mom moy firi alquran ta ay bu wacc na ci mom ta mom am lu upp ben jabar boobu benn la ci li yàq seen wax ñaareel ba ci aaya bi ci boppam walan tastatiu an taadloo bayna nisaa aaya bi ne du ngeen mun a jub ci seen diggante jabar yi même su ngeen ko jéemee même su ngeen jubee jubu leen jafe na nga am ñaari jabar ñett jigéen ñi gis na jub nga jafe loo jub jub ñu ne juboo parce que jigéen bi loo ko bëgg-bëgg li muy bëgg mooy xëcc la ak loo góor góorlu góorgóorlu dañ naan la kële nga gën a bëgg kon aaya bi dane mënu leen a jub même su ngeen ko fexee te ñu am lu ëpp benn jabar xam naa dinañ xam li may wax da ngay ñëw jéem a jub lool keneen tuumaal la ne la kële nga gën a bëgg te fekk moom nga gën a bëgg sax de mën naa am waaye aaya bi ci moppam boo ko continuer mooy yàq wax ñi wax ne ñaara jabar daganut ndax daf ne walan tastatihu an taajiloo bayna nisaa walaw xarastum ne falaa tamilu kullal mayli kon nag bu leen jeng gépp jeng fa tataruha ngeen bàyyi ki wax ne bëggu leen ko kal muallaqa mel ni dañ ko wékki rek comme li leen la ci góor ñi def takk ñaaree rek fàtte seen aawo mel ni duñ wékk fële rek moom sëyut ñàkkute sëy kooku laay kooku daganut alquran waaye aaya bi daf ne même su fekkee ne mënu leen a maandu bu leen ñàkk maandu ba bàyyi ko mu nekk kon mooy ne mu ngi lay dagana lal ne dagan na am lu ëpp benn jabar kon ci aaya bi ci boppam am na ci dalil buy buy yàq waxi ñi nga xamante ne dañ ne euh, ñaari jabar daganut ci alquran yonent bi def na ko bi alquran wàccee ci moom yonent yi yëpp ñi ci ëpp takk nañ jabar te ñi ci ëpp takk nañ lu ëpp benn jabar yaakaar naa ñaari yonent rek ñu amul jabar su ma fàttale ko su fekkee ne su ma fàtt fàttalikuuma ku mel ni yonti yàlla Isa amut yaakaar naa ak xaw ma Zakaria wala xaw ma Yaxya kenn ci ñoom waaye yonti yëpp takk nañ te yonti yëpp takk nañ lépp benn jabar kon loolu kon daganuk benn jabar la waaye tax coow li bari coow li mu ngi baree ci maandu gi alquran wax nee na bu ngeen munta maandu na ngeen yem ci benn yonent bi it ñëw wax ñu jajj ñu ne ñu ku ci takk ñaari jabar ba pare nga jeng jëm ci kenn ki boo dekkee yomal xiyaam da ngay dekki jeng té leer na ma ne bés buñ jëmee yomal xiyaam hmm, dana ci bari dé té gis nga nga dem yomal xiyaam ñëpp di ñëkkalanté jëm sirat nga wara yakamti yow ngay dox jeng ko wuur ñëpp di la xool xam da nga ko ku baxut té nak leer na nyupari ñu bari ci ñi takk ñu ngi jeng jeng gi moy baña mandu baña mandu moy lan ndax baña mandu moy nga yemalé len ci mbeugël dédé baña mandu nga yemalé len ci mbeugël dédé motax jigen ñi kon du dagan nga takk ñaarel ndax mëno leena yemalé ci mbeugël manam faatu ak jaara ak kumba nga takk ñet jabar ngeen bëgg leen mu yem ku nekk nga jox ko loof ñu ne mënut a am ñu ne moo taxit waroo takk leen waroo leen a takk waaye alquran ak yonent bi waxut nga yemale leen ci mbëggeel moo tax yonent bi leeral na ci hadis ne yàlla maa ngi lay ñaan bu ma jàppee li ma moomut yonent bi Aïcha da gënoon a bëgg te dinañ ci ñëw ci kanam waaye mbëggeel googu gannaaw mënoo koo contrôle waaye na nga fexe ba bu mu la ñot di jëmale la ci keneen jigéen ñi ne noo mano bëgg ñaar mané len dédét man nga bëgg ñaar ndax léeg nit am fukki doom bëgg ñëpp ñu né mënoo bëgg ñaar mais nag mën bëgg ñaar ndax xol day bëgg bañ at the same time ni da lay romb nga bëgg ko kéré romb la nga bañ ko gannaaw nam ndabli li ak mbañal daf ci nekk ci the same time kon ñaari mbeugël man na ci nekk man nga tak ñaari jabar ku nekk nga bëgg len tak ñent jabar ku ci nekk nga bëgg ko waye ndax mbeugël gi dafa yem mun naa am du yem ndax dafa am kii lum lay defal am na koo xamante ne boo duggee ci kër gi moom jeexal na ci tontu la